ay jàppante yu metti yu amoon tey jilee ci Mbàkke ci diggante seen Sen'Eau di kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk lu jëm ci wàllu ko séddale ndox mi ak askan wi rawatina nag kuréel gi nuy wax association ànd soppi ndoxu Mbàkke loole lépp nag la ko sabab mooy ñeent ci ñoom ñu ñu xëy coupé seenum ndox ba tax na ñu bëri ci ñoom meroon songu dalwaayu Sen'Eau ma Mabé Ndiaye association ànd soppi ndoxu Mbàkke dikkaat ci mbir meeg na mu demee. li may njëkk a mooy sant yàlla waaye tey jii mënoon naa nekk bis boo xam ne bi Mbàkke du ko fàtte te mënut a mag lii kilifa gu mag wàññee ko Mbàkke ñu nekk journée de l'eau nga wër naan da ngay coupé coupé coupé compteur te ki nga seqal compteur bi yoon moo ko may mu bañ a fay te nous avons droit à l'eau nga di ko di coupé compteur am di ko jël loolu ay caaxaan la wóor sinon ni ñu fi dikkoon kon tey c'est SDE gii kon te fi mu nekk na dóom. parce que nit ki du meurtri pendant quarante ans mu nekk ci problème deux ans ngi ni ñu xeexum ndox ñoo ñu nga leen di moytu su ñu defee ndox mu neex ñu fay ñu ne taalibe Sëñ Tuubaa la ñun bañ ñoo fay. ba ñoo fay bis boo leen fayal ñu fay waaye nii ñu def nii nañ ko moytu directeur wax naa ko mu ne defa juum njuum te lu mag yi nii suma ko gis man parce que nit mënoon na fee dee tey alhamdulilah nit deewut. kenn dëggu fit ba bale ba lañ fa fekkee ñoom agent ñi gaskati peel yi ànd na ñoom dañooy daal yëkkati seen peel di ko di ko xam nga loolu yàlla ñu dimbale ñee daal di tël peel ya ba ba mbëqante ñoom nangu nangu peel ya su leen ko dóoroon wala ñu dóor la leen luy xew tey kon du am problème waaw kon lii njuumtal la ñu ne nag yooyu la facture bañ ñu ko fay waaye nag ci kaw ñu àndi leen ndox mu sell te ci yooyu la jafe-jafe Mor la di directeur régional bu seen Sen'Eau di kat ci seen jëf jooju ak li ko sabab. donc depuis un an jeudi les gens refusent de payer de l'eau waaw ah, dañuy dañu bañ a fay ndox. mais tamit ndox bi aussi nekkul loo xam ne da nga koy tànq nii rek ndox pour nga indi ko dafa dafa dafa bëri ay frais da ngay fay courant bu bëri da ngay fay ay produits de traitement parce que ndox bi tey même bu dee am na goût boo xam ne neexul amul benn microbe loolu mun naa ko waat ci sama tëraayu bàmmeel parce que tout simplement dañ koy traité te traitement yooyu yëpp produit cher la léegi ñu ne comme dem na demee na nii te vraiment jéem nañu médiation plusieurs fois ak préfet ñu ne nag ah oh, li règlement de service bi wax nañ ko appliqué bu dee dakaar ak saint bi Bignona nag fépp ci yem soo amee soo amee facture fayuloo ko dañ lay coupe loolu la règlement service bi wax. seen combat bi c'est légitime man je le dis ah c'est légitime et c'est bien maintenant nag sooy xeex aussi ba mu am foo xam ne toll na fi da ngay da ngay dellu si ginnaaw tuuti parce que tam quoi qu'on puisse dire ndox bi ñuy wax nii mais ci la ñuy sangu ci la ñuy tabax kër ci la ñuy fóot ci la ñuy nangam du lépp la ñuy naan mais nag euh, bu bu la légitimité tam yóbbu ci illégalité. parce que illégalité mooy nga ne ah man daal ndox bi euh, li ma ciy naan neexul donte dinaa ci sangu donte dinaa ci fóot donte mais du ma fay. gannaaw fukki weer ak juróom-ñaar yoo xam ne lànk nañu ne seen facture ndox yooyu duñu ko fay sabab gi nag moo di ndox ma ñu leen di jox jàpp nañu ne baaxul. ñu daal suñu problème mooy ndox mi neexee su neexee ñu fay boole ci prix bi dañu ciy waxtaan dañu dugal équité dindi échelonnage bi wax naa ko ci kanam préfet. facture bu am échelonnage ndox moomu jëru ngeen di ko indi bëgguñu waaw ba ba ba vingt mètre cube bi nga fay nangam mètre cube ba ci topp nga fay fay sept cent xam nga loolu koo nga koy nangu waaw. duñ fay facture ba ndox mi neex su neexee pare ñu waxtaan ak ñoom toog ci prix bi àll bi dañ leen di def tarif forfaitaire leen may saxum ndox te am nañu tool te ñun amuñu tool ñoom amuñu fu ñu génneeb xaalis ñun amuñu fu ñu génneeb xaalis amuñu tool yu ñu béyee ñun kon Mbacke fu ñu jëmee xanaa bokkuñ Sénégal. donte nag ay waxtaan doon nu ko amal ci diggante kuréel googee ñuy wax association ànd soppi ndoxu Mbàkke Bawol ak waa SONES waaye nag mbir ya mu mel nag jamono ji dafa gëllëgoose gannaaw jàppante yu metti yi amoon waa SEN'EAU bu Mbàkke ñoo mujjee dellu ginnaaw delloowaat ndox moomee na meloon loole nag askan wi bég ci lool ba di ko fësal ànd soppi ndoxu Mbàkke docteur Mbodj ak ñi mu àndal ne biléb xeex daañu ko wéyal